waaye di ñu ma samedi ne ma Youssou Ndour looy def fii yow maa ngi la foogoon fa ma ne ko déglul na sama waxtaan woowu laa leen di bi ñu njëkk a dem final dama dégg cosaan ba pare loué avion dugal ci waaj yi may ji ak saint ak saint ak ñeenti ñeent ñu dem Bamako tey sama ñibbi si boobu

ma ne ko dematuma fenn ñaari yoon final ah. non defet dafa métti booy ñibbi doo gis kenn doo seetaan dara moo tax ma ne bii yoon demuma fenn wax nañu ba tàyyi ma ne demuma fenn maa ngi fi guddi ma wax ak ñoom wax nañ ma war a war a wax di xaar comme les Sénégalais yëpp